Euh, ñu ne dañ ko arrêté tey. Mhm. ci information yi ma dégg ñu ne lan lañ ko arrêté. Mhm. dafa dawal sans permis. Mhm. waaw loolu nekk loo xamante ni. su fekkee ni noonu la demee. amendooy mi ma xam ci yar gi. amendooy mi nga xamante ni moom dafa porté wu. ne moom moo ko ñor. amendooy mi xamante ni moom dani dafay wane bon exemple. pour ay frère am. ay grand frère ay doomam ay jarbaatam. kon kooku su fekkee ni dan ni dafa dawal sans permis. non kon Ameth Ndoye moom wax dëgg yàlla loolu mu def waru ko def. on se dit la vérité. Mm-hmm. Ameth Ndoye keroog bi nga toogee jàkkaarloog ak Bijou Ngoné 2STV confrontation. Mm-hmm. man naw naa la. ndax gis naa ci yow dégg ci yow ay kàddu yoo xamante ni dama ni kii bañkat la. Mm-hmm. mais heure boo demee ba nekk bañkat nag bul tooñ. dëgg la man. ñu ngi may ma dafa naqari deret. mais du ma tooñ. may ñaanal yàlla sama papa yàlla na yàlla guddal fanam yàlla wéral ko. moom sama oto man. su yàlla dogalee assurance bi jeex moom bu ko yëgee danaan oto bi fi assurance laa wax de waxuma la permis mën mën dawal ans sama papa mënuma fexe ba dox ba jox ma oto ndax lan permis mais tey fi a toll am ñoo xamante ni wane ay exemple réew mi dafa nekk réew moo xamante ni am na ni ñun ñoo ko war a bañ ci permis assurance carte grise mhm. loolu moom képp kuy citoyen nekk ci dëkk bi mhm. ngay homme politique a koo mën a doon mhm. bàyyiwuma kenn ndax am na ñoo xamante ni ñi ngi fii ci dëkk bi yéen accident yi ni fi dégg ci ñenn ñi leen ñi ni jàpp sans permis ci leen jugee nag di door a uti permis dëgg la am na ñoo xamante ne ñi ngi may seetaan xam nañ li am na ñoo xam ne ñi ngi fii ci dëkk bi di dawal pendant huit ans ñii dix ans ñii cinq ans te amuñu permis mais loolu ñu teg fan citoyen da bu dee carte d'identité war nga ko am. ndax citoyen nga. da ngay dugg fenn fi. élection day jot. carte électeur war nga ko am. mais permis war nga ko am. loolu c'est l'essentiel ci mm. ci ci citoyen bi. Mm-hmm. ak Ameth Ndoye fi mu tolloon ci réew mi te dafa tiit ci bu bees bi nga xam ne moo fi nekk euh, ñu gis ko moom ñu koy tuumaal ci lu mel ni ne maam dawal euh, faux de euh, permis sans permis est-ce que loolu moom war na ko en tant que mu doon porté doon ko combattre. non waru ko. te olof nee na ki def li la war mucc ci li la wër ku def li la war ah. mucc ci li la wër loolu waru ko mhm. man nag dama ko déggandigum rek bu dee noonu la demee mhm. loolu moom waru ko mhm. bëri na version aussi nee na doon na dawal tamit euh, fële ci Sëbu Xutaan mbëkk fa benn xale eh. mais après ci leen jëlee permis nangu ko otoom mi ngi euh, ci gendarme ñu ñu ñu ko lépp ci même jour bi non non non maam avant jour bi nga xam ne moom la doon def tey dañ doon def li nga xam ne moo di point de presse moom Cheikh mhm. waxee ba pare ci lañ ko ci lañ loxo parce que boobu tamit ñoom doon lañu wax di a leeral seen permis bi nga xam ne yoon da koo téye est que tamit coow li juddoowul foofu waaw mais ak lu mu ci mënti doon ñun doonoo am justice justice boo xamante ne fii ci Sénégal mhm. ñu ñu ñu xarañ lan te te te ñu mën li ñuy def lan mhm. lu mu ci mënti doon tey jii ñu teg ko loxo. dinañ xam ni kii amoon na permis wala amul permis ndax bu boobaa enquête dina ci jub. enquête bi dina wane ni kii am na permis wala amu ko mais nag bu ko amul bu ko amul nag moom. loolu moom. déception la bu rëy ci Ameth Ndoye ndox loolu moom waru ko. waaye nag ci lépp lu mu mën a nekk. en tant que jullit en tant que doomu aadama. ñu ngi koy ñaanal. ak képp nag. ku nekk ci ay jafe-jafe mhm. ak ay xat-xat mhm. ndax jullit warul yéene moroomu jullitam lu dul jàmm ak salaam mhm. man boog ndax sëñ Fallou daane wax ne ku yéene ñëpp jàmm bu ko ñëpp amul it yow da nga ko am la kon jàmm jooju laay ñaanal képp kuy doomu adama waxuma la ngay julli képp kuy doomu aadama man saa su ne maa ngi lay ñaanal jàmm képp kuy doomu aadama maa ngi lay ñaanal yàlla sunu borom lépp luy lore wala lépp luy yàqu yàlla boo ko gis amiin amiin influenceurs yeeg artistes yeeg yu mel ni dañ leen ciy jàpp ci lu bëri fan yi gis nañ yàggul dara gisoon nañ ci ku mel ni jaay doora téewoon nañ ko ci lu mel noonu. Mm. maanaam bëri na fan yi daal ñu nga xam ne nii ñu ngi leen doon téye ci yu mel nii affaire de défaut de permis est-ce que tey euh, dafa nekkoon ne régime bi fi nekkoon dañ doon laisser passer yu mel noonu moo doon tax gars yi doon dawal ay permis ah, di dawal oto sans permis ak régime bi nga xam ne dañoo woote jubal dëggal leeral. Hmm. te est-ce que ñoom it bàyyi war nañoo bàyyi xel ne maanaam tey am nañu tur bay dawalee oto sans permis. waaw mooy li ma la wax bu fekkee ne da nga ni yow homme politique nga wax naa la ko. Hmm. wala ngay porteur de voix. Hmm. wala ngay ku nu xam. non yow lépp luy ay waru la. warul sax képp kuy citoyen mhm. mais en tant que koo xamante ni. Mhm. nit ñi xam nañ la nit ñi xam nañ la. Mhm. lan lan la jàppee amoo permis non yow ci sa jëmmi bopp rek bu la ci jàppee ba pare rek da ngay tuuti. da ngay réduire. loolu nag moom moo la warul. kon képp koo xamante ni citoyen nga laa la wax. waroo ñàkk ñett yi ma la wax. muy permis carte électeur mhm. carte d'identité mhm. noonu a ko ñàkk ci lu wér ndax citoyen tey jii bi nekk ci mbedd mi di xeex ak xuloo jaru ko carte nga yor war a dem voté ji mhm. bu élection jotee ak élection bu mën a doon dafa am luy fal am luy folle xeex falul xuloo falul mais dëgg mooy fal son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais ku xa ku ni tey jii ni mu gagné tey campagne mais dara warulu ko lu dul nit ñi ñoo jugandoo maas voteel ko mhm. yàlla jël ko teg ko ci bopp réew mi mhm. ku ko ko waxoon du ko gëm mais yàlla booba noppi na mhm. faxalul li may riidu lu ma neex laay def te li may def lu ma soob laay def kon booba yàlla noppi na kon képp kuy citoyen maa ngi ñaan yàlla sunu borom yii fi am nii war na la jox bon exemple yu xewati nga jéem a xool nan nga ci mën a jàngate waxuñu jàpp na diw bàyyi na diw def na lii diw ci rien non boo déggee ni jàpp na diw li nga war a njëkk a questionné lan lan ko jàppe yow nga nekk si citoyen bu ëllëgee rek nga war a jaar feneen fudul yow fi nga jaar kon Ameth Ndoye man wax dëgg yàlla ku dul yow sax yéene wu ko safaan mais lii bu fekkee ne dal la jàpp nga dawal sans permis ah loolu moom àdduna moom ñëpp dina na ŋàbb te nag di nga am yaraanga boo xamante ne yow doo xam sax foo koy wax ji ndox yow tey ji bu boobaa bu na la expliquer loolu nan nga ko mën a jàngate kon version yi bari na. Mhm. doo xamagum. Mhm. mais nag. yoon su sunu demee ba ci biir. Mhm. ba yoon wax nu li xew. ah bu boobaa boo la ne laajaatee. ñu mën ci xam lan lañ ci war a wax. mi ngi noonu. am na solo mais naka nga jàngatee jamono ji jigéen ñi ni ñuy faral di ah, dànkaafoo góor ñi góor ñi dañuy dóor jigéen ñi ba ñu gis cas bi nga xam ne moo di ah, kii di Alioune Badara Mbacké ak ki nga xam ne moo di Dieynaba. Ah, Dieynaba ba yoon teg ko loxo doon. ko euh, mu nekk en prison mm. même Alioune Badara aussi tey jàpp nañ ko ci li nu mel ci seen diggante parce que dañoo gis ni maanaam xale bu jigéen bi euh, dañ ko maltraité ba pare yóbbu ko kaso jigéen ñëpp taxaw ne góor ñi dañoo tàmm benn affaire jàpp góor ñi euh, jàpp jigéen ñi di leen maltraité ba pare di leen dóor en tant que père de famille mën naa ko wax mm-hmm. mais tant que góor aussi naka nga jàngatee comme ni ñu ko jigéen ñi di waxee góor ñi dañuy dóor jigéen ñi waaw loolu man rafetlu wu ma ko bari na nag mais kenn ku ne ak sa version. Mhm. xam nga tey eh, li ba tey rek man dama jël benn exemple man sama papa mooy sama idole. Mhm. da ngay faral di wax mu ne jigéen làmminam kese la am. dëgg la mu coow amee. Mhm. yow munul ludul moom wax rek la am ci yow. wax ji nag moom. fu mu gën a fu mu gën a ñaawee dana la ko wax ndax làmminam la. bu la sa jikko giiree nag. da nga def ba def loo xam waroo ko def. ndax wax balla bu xasee ba génn rek moo ma toog. Mhm. loolu maa ngi koy njëkka ñaawlu loolu rafetlu rafetlu ma ko. Mhm. yow koo xamante ni tey yaa ko ëpp doole. Mhm. am na noo xamante ni boo dalee ni ci kawam rek boo amul tuuti réfléchir rek di nga def ay. nit ñi nañuy doxalee seen xel. ndax xol. dafa nekk loo xamante ni dafa mën a gaaw manipuler xel. xol. dafa mën a gaaw manipuler xel. daf lay manipuler immédiatement rek. Hmm. nga def loo xamante ne après danga ngay regretter. tout sauf ça hmm. rawatina nga dem ba dóor ko ba yegg fenn fi. Hmm, ba mu gaañu ba gaañ ko non non non non. pas et ça ne se pas. am na loo xam kenn du ko def kenn du ko wax. je ne suis pas d' accord. d' accorduma. te koo xamante ni yaa ngi dégg info yu ñu naan bii mooy septième jabaram. mais ñenn ñi lan la leen def. kon yaaram Mbàkke Balla sa buri yow sa maam mi nga xamante ni ñun moom lañu yaakaar muy Serigne Touba. Mm-hmm. kooku lu bari daf ko jàngale ba pare bind bàyyi fi. maa ngi koy wax toujours rek ci benn bayitam fi mu naan fa innahu urwatan musxaafa maxsiduhu mm-hmm. xadan yebosu la daa mawlaa bi jannaati dañu ku jàpp ci buumu yonent bi mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam wala nga jàpp ci sama buum jëmewu la fenn fudul ci yàlla tey nag boo ibbee alxuraan tey jii nga ne la ñu ne tey lislaam jigéen moo ci njëkk a Jigen moy sunu yaay mm-hmm. jigen moy sunu sœur mm-hmm. jigen et cetera et cetera et cetera mm-hmm. war nga ko meuna xolé ci yenen anam lu diko di def jëf ju ñaaw rafet lu moko man en tant que comme li nga wax père de famille la dom la yorna soxna amna ay sœur tay ku len ko defon duma neex mais jigen ñi tamit aussi kep ku la yalla bolel nga xamanté ak mom rek euh, war nga ci dawal yermandé man la fois passée am na benn wax bu amoon rek ci sama voisin mm-hmm. ñëpp ak may seetaan mm-hmm. man sama voisin tëb na def ma loo xamante ni li muy jigéen a tax mm-hmm. jigéen moo la mën a provoquer wax la lu ñaaw yëkkati dara tey dóor la yow boo fayee ñu ne jigéen la kon góor ki war na war nay mën a réfléchir quoi tey yow moom mën na la def lu ne garaawul la ñuy wax de mhm. yow nga yëg ci sa loxo laal ko ñu ne kii day dóor jigéen ah, yow bu boobaa yow yaraa nga lay nekk ci sa ci ci ci yow quoi mhm. kon ba tax na rek na mhm. leen di yërëm quoi. mais dafa mel ne jigéen ñi am nañ dëgg ci kaw góor ñi fi mu nii. waaw parce gis ne cas bi am jigéen euh, dóor na xaw góor door na jigéen ba ci ku jigéen ki génn ñaxtu bi tamit la même chose ku góor kee génn mais terewul ñëpp xam nañ ne maanaam tey ku jigéen ki moo gën am dëgg ci kaw ku góor ki. waaw xam nga tey jii mooy li ma la wax rek même bu ko moom même bu tey ku góor ki bu tooñoon. Mhm. mënul am dëgg. Hmm? waaw ndax dóor ba dóor ba rek lañ koy balaamee. Mhm. foofu rek lañ koy téye. Mhm. déggoo ma ne la donte ko ku jigéen ki moo ko tooñ yàq ko lu ne wax lu ne. du gis loolu. dóor ba mu dóor la ñuy gis fi ne nii. dañuy bàyyi yooyu yëpp soo waxee ñu ne da ko dóor. mais loo ci mën après. loo ci mën mënoo ci dara lu ñëpp wax mooy dëgg mais jigéen ñi tamit nañ gën a jox nit ñi respect mm-hmm. c'est très important mm-hmm. ñoom ñoo nu jur waaye ñun ñoo leen jur mm-hmm. seeni borom kër ci la nekk seeni papa ci la nekk seeni càmmiñ ci la nekk nan bàyyi affaire violent ci ñi ma ko sañ wax am na jigéen yoo xamante ni danoo violent ñoo la mën a wax loo xamante wala lu ñu def la loo xamante yow ngay bëgg dama ci gis kaa yu ne. Mhm. damay wax ak tey ñu bari sama jigéen ñi. Mhm. damay wax ak ñoom sama sœur yi damay wax ak ñoom. Mhm. mais à chaque fois bu nu waxee ba ci biir da xam ni ñoom lu ci bari ñoom ñooy tooñ. kon ñi ngi ñaan yàlla sunu borom diggante boobu yàlla na ci yàlla def jàmm. yàlla wis ci ndox mu sedd. di ñaanal ñëpp nag. mais jigéen ñi leen góor du projet fi mu toll non projet la kay. <laughs> ah yow jigéen tey taaru la. ah jigéen ñi ko wax. non taaru jigéen sëy la ak ñoo koy wax. sama bopp ngi métti rek dëgg la sunu bopp. Hmm. mi ngi metti wóorul sama bopp a ngi metti moo gën a wóor. am na ñoo xam ca la nu ne. Hmm. moo leen gënal téeméeri junni yoon ca la ca kala keneen ca la mu ne. Hmm. taaru jigéen sëy. am na ñoo xamante ni tey boo leen doon wax lu dul sëy sëy lan xam. ndax wal du tey ju yaxaru jënn baatuhu bisni rabbi gàncax gu baax mooy jur meññeen bu baax mag ñu baax ñi tey jii li tax ñu daan la wax ne la booy ut soxna bàyyil ñu tànnal la ko wala demal sa kër bàyyi diw wala nàngam la alxuraan waxoon rek lañ bëgg a feddali mais bari na souvent yi am mhm. gis nit tey mu neex la tey nga bëgg ko tey suba nga takk ko mhm. mais moo tax yii di am. ah kon ba tey mën na ne ba tey mën na ne waaye nan dellusiwaat ci démb rek. Ah, boo déggee ñu ne la jamono daa changé. Hmm. jamono changé wul nit ñi ñoo changé. lundi ya daan am mardi yeeg mercredi yeeg jeudi yeeg vendredi ba tey mooy am. dara changé wu ci nit ñi ñoo changé. nit ñi changé jërëjëf sama waa ji maa ngi lay jaajëfal. waaye di la béggee yow tamit di ñaan yàlla sunu borom defal nu jàmm. réew mi yàlla def fi jàmm. defal nu ko ñun ñëpp. ci barke Seydouna Mohamed. barke ñii ñoo koy jaay mooy bu baax bi BDK mhm. suma xarit Bamba kenn du moom mhm. amal jàmm sam waa